toujours dit qu'il faut rencontrer les politiciens mais il faut pas les fréquenter. naka rek tiis la taskatu xibaar yi yeewoo tey alxamis ñaar fukki fan ci weerum avril Mamles Camara dëddu àdduna mu nekkoon nit ku oyof bokk ci ñi sukkalime cim journalisme fii ci Sénégal muy nit ku baax bu ñu sukkandikoo ci naataangoom journaliste bi doon liggéey fanweeri at ca RTS. musuma fàttalikoo fu mu xuloo wala fu ñu koy àttee. wala ñu wax benn safaan boo xam ne dañ koy dañ koy dañ koy lié ci moom jamais jamais il est toujours courtois. ñu fekk ko ca rajo Futurs Médias mu doon seede ak fàttali kii di Mame Less nekkoon baay ci moom. daf ma jàngal ma yemul kese ci loolu daf ma doomam cest à bi lu ko chart yi tege la koy defe ci mujjoonteel gi nii doo ko gis fenn du wax du bind. pourtant mi ngi fi. rédacteur en chef bu rajo Futur Média bokk ca ña Mame Less Camara jàngal li di métier journalisme di ñu xamal du ko xare ñoon la ci liggéeyam. waaw man Mame Less yàlla dama taw féexale ma xam ko ca école ba mu jàngal ma ba noppi ma fekk ko ca rédaction ba moom sax moom fekk fi ma nekkoon ñu doon liggéeyee nga xam ni di nga mën a bind ba noppi di wax li nga bind ba noppi moom mooy directeur rajo bi. mu xool ko mu doog a jàll wala muy déglu rajo bi di dégg muy jàll mu am ci lu mu la ci wax lii wàññi ko lii bul ko defati lii yokk ko. atum 1980 la tàmbali lii di métier journalisme nekkoon itam jàngalekat te sesti mu dëddu àdduna ginnaaw juróom benn fukki at ak juróom ñett maam les Camara suba ci dibeer lañ ko nar a dénk boroomam ca Yoff ñuy ñaan yàlla na ko yàlla xaare aljana